administration publique euh, dafa nekk fonction bu am solo ci ni ñuy gouverner ci Sénégal mooy tàmbali mooy mujj itam ci liy doxal nguur administration publique nag yor ay mission yoo xam ne dafa war a tënku ci service public maanaam lépp njëriñu askan bi la war a doon agent wu état bi nag ñoom ñoo war a doxal politique yi nga xamante ne président bi daf ko tëral daf contrôle bi daf suivi bi agent administration bi ñoom ñooy cëslaayu état ba tax na bépp nguur bu ñëw dafay tànn ay cadre yoo xam ne mun nañu doxal orientation maanaam gis-gisu njiitu réew mi projet de gouvernance bi nga xam ne dafay indi changement moom mooy lal mandat juróomi atam kon faw mu def ay résultats njiitu réew mi nag ak gouvernement am waaye war nañu moytu ndëgg sërëx yi nga xam ne dafa lalu ci système mu présidentialiste moo di administration publique ñu koy jaawale ak parti administration bi ñu koy politiser ku nekk ak ki nga faral parti état loolu dafa mës a nekk doxalinu président de la république yi nga xam ne ñoo fi toftalante 1960 ba léegi mooy maanaam bi ñu amee indépendance waaye compétence mën-mën ci wàllu gestion wàllu jiite ay nit ak jëmale service publique kanam moo war a jiitu lu mu munti doon rupture maanaam indi coppite xeex corruption médiocrité ak dëppale administration ci parti bi loolee yëpp moom la ñu war a jiital